muqaddamatun lii lu ñu jiital la maanaam lii lu ñu ubbee téere bi rek la mooy buntu téere bi daal yaa ayyuha sibyaanu yéen ndaw ñi maanaam yéen gone yi laa tashtaxilu bu leen soxlawoo anil hudaa lu dul jub nena gone yi maa ngi leen di dénk bu leen am soxla ci lenn lu may jub jub rek mu am ak mucc leneen moom bu amee njëlbeen nit du am ak mucc washtaxiloo na ngeen soxlawoo bina xoloomi ci xam-xam ya dama jubitam bala nga koo man dangay xàmme lu di ak njub ak lu di ak dëng ba mën a topp njub ko wàcc dëng ga te loolu nag yaa ngi koy amee ci xam-xam xam-xamu lislaam bu wéréwul ci ngay xàmmee loolu moo tax mu naa la ngeen yittewoo xam-xam ya fashtaxiloo na ngeen soxlawoo bil xifzi ci mokkal alquran wa tilaawati ak jàng ga da ngeen farlu ci mokkal alquran te bu ngeen ko mokkalee bañ koo bàyyi sax ci di ko jàng ngir jaamu yàlla ak xam-xam bee mu jiital nag nee na yooyu na ngeen ci farlu bu baax a baax yéen gone yi muy mokkal alquran ak xam-xam yooyu yaar na ngeen ci farlu bu baax a baax wajitani bootu ngeen teet majaalisa shaqaawati jataayi texee di jataayi texee di mooy bépp grand place boo xam ne boo fa toogee doo fa yokkoo dara ci sa digganteeg sa borom bépp jotaay bi mel noonu rek jotaay la boo xam day indi texee di texee di mooy ñàkk a texe mu nekkoon na ngeen moytu bépp jotaay bi mel noonu wala zimo te ngeen taqoog man koo xam ne laa yeesa lu du dañ aabidan di aji jaamu li rabbihi ñeel boroomam xaa'idan te aji wamate ilaa hudaahu jëm ci jubam nga nee na faawu na ngeen ànd ak koo xam ne day sax ca yoon wa te ku ànd ak moom mu teg la ca yoon wa ku mel noonu faaw na ngeen ko seet ba gis ko ànd ak moom fakkum mën képp koo xam ne baa dara daawantu na waxta sixari ci waxtu ndawe ilal hudaa jëm ci jub istaraaxa kon mu noppalu waxtal kibari ci waxtu mage képp koo xam ne bi nga dee gone danga daal di farlu jéem a xam yoon wa daal ci aw nga xam ne laata ngay nekk mag day fekk sab xol làgg ci say cër làgg ci mu ne kon yow noppalu nga faw ba àjjana waaw am na flaaya nga ko faw ba àjjana waaye koo xam ne nag day gone bañ a jéem a xam lu baax amul soxla ci topp ko ba xas màgg ca noona la yëlbati xolam ak nàmm cër yi ba mu làgg ca lay jafe lool loolu moo tax mu ne li mu wax moom ko def rek noppalu nga ba àjjana wa man tadaaraka ku dabaatal ëllëg yi la nga xam ne xadd faata faat na mooy raw na muna loxaa ci ak neen waa marate mu dundal al awqaata waxtu ya bit tawbati ca tuub ga an na sooxi gay aju sell wal iqbaali akub jublu ilal ilaahi jëm ci buur bi faaza kon mu texe bil kamaali ca mat ga nee na koo xamee daa am daa am lu la raw ci sa dund ci caaxaana ki neen rek kooku nee na war naa gaaw dabaatal ko dabaatal gi nag mooy farlu ci tuub gu sell dellu ci boromam dëgmal boromam faw ci jëfe ndigal bàyyi tere te boromam rek tax saa yu nekk mu sax ci loolu nee na kooku day mujj la ko rawoon lépp dab na ko la ko rawoon lépp rek dab na ko xeekum jàpp leen nasihat yi sama laa biire lakum ñeel leen nee na gone yi kat waxal naa leen lu am njariñ lool na ngeen ko jàpp fa tarbaxoo kon da ngeen tonaw tonawu tonawu ci wolof mooy bénéfice duniyaa ci àdduna wa uxra ak ci alaxira maa qawmin ànd ak aw nit aflaxoo ñuñ texe nañu nee na li may wax ci lu baax na ngeen ko jàpp bu baax te jëfe ko kon da ngeen jëriñu àdduna ak alaxira da ngeen texe ànd ak ña texe baabun li ab bunt la fii aqsaami diini ci xaaji diine aqsaamu diini rabbina xaaji diinay sunu boroom al imaanu moo di gëm wa baadahu te nekk na ci gannaawam al islaamu wéyale santaane yàlla ci kaw suuf wal ihsaanu akuk rafetal mu ne diine ngir ñu yombal njàngale mi ak ñu mën koo dégg te jàpp ko dañ koy def ñetti xaaj muy gëm muy al imaan ak wéyee ndigal bàyyi tere yam fa nga war a yam muy al islaam ak looy def yàlla dong tax te sàmm ca teggin muy al ihsaan yett yi nee na mooy diine mu njëkkee ne kon gëm imaanukum seenu gëm yaa ayyuha sixaaru malaikati ak malaika ya wa kutubi haadi salikin ak téere yàlla mi aji jubal aji soobu ji góor ci yoonam wa salikatin ak aji soobu ji jigéen ci yoonam wa yawmihi ak bisam ba al aaxiri bay aji mujj wa rusli ak yonante ya al kiraami ña di way tedd wal qadari ak dowal ba allasi ba nga xam ne ya joodu dana tabe ba dana maye bil maraami ca càkkuteef la te am gone yi lay taalife mu ne leen yéen gone yi su su ngeen bëggee xam ni ñu gëme yàlla yàlla mi nga xam ne moomam gone yi moomam mag ñi moomam lépp seq ko kenn ba ndiggam juróom-benn yi muy yàlla ci boppam ak malaakaam yi ak téere yi nga xam ne moo ko wàcce woon ci ay yonenteem moom yàlla mi nga xam ne ku soobu ci yoonam yi moo xam góor la moo xam jigéen la bu ko soobee mu gindi la ba nga àgg gëm itam bis penc gëm yonante yi nga xam ne ci ñoom la yàlla wàcce woon téere yi gëm ak dogal daañu wax naka la ñuy gëmee dogal bisañ bi taal téere bi nag boobu dafa fekk digganteem ak boroomam jege-jege boo xam ne danay daaneel aw way loo xam ne lu ko yàlla defal la ndax dane dogal bi lépp loo bëgg rek dogal bi amal ko muy lépp loo bëgg rek yàlla def ko loolu da ko daaneel way woowu su ko defee kon juróom benn yaangoog yàlla malaaka yi téere yi ak yonante yi yàlla joxoon téere yi ak bis penc ak ub dogal bunt bi nga nekk nag moom dañ fi jàngale rek ni ñuy gëme yàlla ci boppam kon ñu njëkkee ñaar fukki melo yi nga xam ne moo sax ci wàllu yàlla nga xam ne melo yu mat la ko defee nga jéem koo takk benn benn ndax daana ko teqale benn benn imaanukum seenu gëm bi rabbikum ci seen boroom tasdiqun moo di ak dëggal bi annahu ci naka moom yàlla wujuduhu amam nga xaqiqun aji dëggu la waaw nee na xale yi seenu gëm yàlla la ci njëkk mooy ngeen gëm ne yàlla ci bopp lu ama am la rek lu ñu wax te amut ca dëgg-dëgg lu ama am la kon nangu amul yàlla mooy benn melo bu jëkk waxoo moom yàlla xadiimun aji jiitu la maa lahoo déet di ko ñeel bidaayatun ak tàmbalikaay waaye nag booy jàng téere bi mën ngaa xool rek bidaaya ñu ko bindee nga waxe noona wa doo baqaa inte boroomu des la maa lahoo déet di ko ñeel nihaayatun ak yemukaay ba tey mën nga ne nihaaya ñu ko bindee rek gannaaw boo gëmee ne yàlla am na ne dangay gëm ne yàlla dalewul fenn bi ne yàlla aji jiitu la jubluwuñ ci rek moo fi njëkk dañoo bëgg a wax ne dalewul fenn fenn fenn mos ta ñàkk benn yoon muy ñaari melo nga gëm ne itam yàlla dafay des ba faw dafay des ba faw mooy du jeex mukk duñ dem ba yàgg ñu ne yàlla amatut kon wa zu xilaafin te boroomu wóote laak lil bariyati ñeel mbindéef yi ma àndooli seen dangay gëm ne suñ boroom moo sàkk lépp lépp lu bokk te yàlla yàllaa ko sàkk mu di moomeelam di jaamam waaye nag taxul mu nuroo ceeg lenn lenn ba kenn kenn kon melaw ñeenteelu mooy nga gëm ne yàlla moo sàkk lépp waaye nuroo ceeg kenn ba lenn wa zooxi nante boroom doylu la bi nafsihi ci boppam loolu mooy melaw juróomeel wi mooy dangay gëm ne yàlla dafa doylu ci boppam sëkk sëkk aajoowul kenn ba lenn lépp ko aajowoo ndax dara mën ko woon gannaaw demal sa bopp waaye moom aajowul kenn ba lenn jaamu ñu koy jaamu ñëpp marché ci gëm ko di ko jaamu ak ñëpp marché ci weddi ko di ko moy du tax dara du tax lee jariñ ko du tax lee wàññi ko dara da ko soob rek mu digle gëm geeg jaamu gi aaye weddi geeg mooy gi bu ko defee nag lee mu ca teg jamaxa boole na ñëw yëpp lii ñeel ma sumbi di ko daan li way wi wax ne yàlla boole na mboolem yu baax yi jox ma ko waaxidun te kenn la moom yàlla maa in lahoo déddi ko ñeel min saanin jenn aj ñaareel wala mu yesalati musta dañ moom yàlla yàlla màgg na azima shaanin di aj màgg mbir melaw juróom benneel mooy nga gëm ne yàlla benn yàlla dong la yàlla du ñaar du ñett amul yàlla am penku ak yàlla am sow wala yàlla am démb wala moom tey wala mu ëllëg benn yàlla bi rek la gëm ne yàlla kenn la te wéetal ko dañ koo fonk ba nga xam ne way woo nga wax ak ñaari ci topp yépp loolu la ñuy feddali wéetu yàlla bi moom lay wax ne tafarrada wéetoo na alfardu aji wéet ja ëllëg yi da nga xam ne xama a nat na noonu yépp lii ñeel ma moom moo wéetoo biddaati ci jëmm ja wal wasfi ak melowa wa bil fi'li ak ci jëf ja maxan boole feen nee na yàlla mi nga xam ne mooy kenn te mooma daaneelal samay noonu yett yi moom rek moo ko wéetoo mooy moom rek moo ko amee kenn du ko ca fekk mooy jëmmam ji moom rek ko amee melowam yi melo yi mel moom rek ko amee jëf itam moom rek ay jëf lépp lu dul yàlla rek jëfi yàlla mu del ko fetliwaat maa in laxoo dédd ko ñeel taanin jenn aji ñaareel fi daadi ci jëmm ja wal was fi ak melowa wa fi afxaalihi ak ci jëfam ya nee na suñ borom amul kenn ku koy ñaareel ci jëmmam ji am jëmm ji mel ne moom mbaa ji ko nuru wala melowam am melow mel ne moom mbaa bu ko nuru mbaa jëfam jëf moom dong mooy jëf amul keneen koo xam ne mën ngaa jëf dara lum tuuti tuuti lu dul yàlla rek jëfi yàlla wa yastafi dana tànn nag man caa ku ko soob dana tànn ku ko soob sëñ bi da koo daan li way wi loolu nag boo seetloo lu ne yàlla am na ci lu ko soob mu tànn ko ca gis nga ni mu tànn ci nit ñi yonente bi Muhammad alayhi salaatu wasalaam gis nga ni mu tànne ci malaaka yi Jibril ak Mikaayil ak Israfil ak Asraayil gis nga ni mu tànne ci dëkk yi Makka lu nekk rek boo demee gis ca mu tànn ci la ko ca soob gis nga lim tànn ci téere yi alquran yooyu rek kon nii nga waxagoon juróom-benn la mooy yàlla am na benn delewul fenn muy ñaar du yem fenn muy ñett nuruwut ak lenn ci lim sàkk muy ñeent doyul na ci boppam sëkk muy juróom yàlla kenn dong la mu juróom-benn. man ngaa takk juróom-benn yooyu nag ndax fukk ñeent ci topp moom seenu bañu benn lay doon ndax dañuy lëkkaloo moo tax moom lay bëgg a tàmbali wa qudratun kàttan maha iradatin ànd ak nammeel wajabataa war nañu ñoom ñaar lëxoo ñeel yàlla on bu dan ko na nga ko jaamu wal tujjil lëxoo te nga màggal ko dina bokk na ci melo yi sax ci wàllu yàlla te nga war koo gëm te jàpp ko mooy nga gëm ne yàlla amee nag kàttan goo xam ne dara tawu ko lépp la mën amul dara dara lum tole loolu mooy qudratu bi ci topp mooy nga gëm ne yàlla ci coobareem dong lay joxe amul lu koy rëcc am maa lu ko lu mu ñorut am loolu mënta nekk lépp lu am rek da koo namm da koo soob moo tax mu am waaye lu koy rëcc rek am mbaa luy tomb rek am mbaa luñ koy forcé ba mu jëf ko nga xam ne moom ñoru ko nañ ko caa forcé mbaa luy nuru loolu déedéet loolu mënta am xel mun xam xayaatun ak dund maxa samin ànd ak dégg wa basarin ak gis maxa kalaamin ànd ak wax wa jabat war nañu maanaam sax nañu li diir bachari ña borom mi def yi damay gëm ne yàlla amee na xam-xam boo xam ne dara ëmp ko te lu nekk la mu doone la ko xamee lu nekk na mu doone la ko xamee nga gëm ne yàlla amee na dund goo xam ne moo yàlla ci moom dee du ca toog mukk ci dundam googu nga gëm ne yàlla amee na dégg ba yàlla ca moom doonte du dégg ay nopp yu mel ne mi def ba tey nga gëm ne yàlla amee na gis ba yàlla ca moom amee na wax nga yàlla ca moom di tàmbalee xudratu muy kàttan nga teg ci iraada muy coobare nga teg ci xilmun muy xam-xam nga teg ci xayaatu muy dund nga teg ci samxun muy dégg teg ci basar muy gis teg ci kalaam muy ak mën a wax juróom-ñaari melo lañ juróom-ñaari yi nag kenn ku nekk day diw benn ndax ndegam ay melo lañ bu saxee ci jëmm ji rek faaw nga ne jëmm ji doon na loola ci misaal rek xam-xam ku nekk ci moom nga ne kooku day borom xam-xam la mais aalim la waaw lii ay melo la ku nekk ci moom nga ne kon jëmm ji de melo woon a melo wii waaw li gën a yomb xam ci yow nag mooy ku amee dégg ci misaal nga ne kooku day aji dégg la maanaam ku amee dégg la koo xam ne na di gis koo xam ne amee na melo gis nga ne kooku day aji gis la maanaam amee na ab gis jëmm ji amee gis la daal ñi ki boo dégg ne diw alim la aji xam la daa fekk melaw xam-xam nekk ci moom su ko defee nag kon moom lay bëgg a wax mooy wa kaw nu rabbina ak nekkuk suñu boroom taxalaa kawe na xaajiran di aji atam xayran muridin tey ngën di aji namm laa yesaalu dëgg du dañ shaakiran di aji sant wa aliman te aji xam xayyan te aji dund samihan te aji dégg waxe ba kopp maye na wa kaw nu xoo nekkam nga it xayra basirin di ngeen di aji gis waja ba war na wa mutakalliman tey aji wax waaw bi nga ne yàlla melaw xudratin kàttan nekk na ci moom kon nee nga yàlla xaadir la mooy jëmm la yoo xam ne ëmb na kàttan bi nga ne yàlla am na iraadatu coobare kon nee nga yàlla murid murid la aji namm la maanaam am na iraad jëmm la ju am iraadatu bi nga ne xilmun xam-xam nekk na ci yàlla kon nee nga yàlla xaalim la aji xam la bi nga ne xayaatum ak dund muy melaw dund nekk na ci yàlla kon nee nga yàlla xayyun aji dund la ba nga ne yàlla amee na samhun ak dégg kon nee nga yàlla samihun aji dégg la ba tey boo ne yàlla amee na basar ab gis kon nee nga yàlla basir aji gis la kon ba tey boo ne yàlla amee na kalaam ak mën a wax kon nee nga yàlla mutakallim la aji wax la lii boo ko wàññee fukk ak ñeent lay doon ndax boo ne kàttan gi ak coobare ji ak xam-xam bi ak dund gi ak dégg gi ak gis gi ak man ngay wax juróom ñaar lay doon te nee nga loolu ay melo la benn bu nekk nag bu nekkee ci jëmm ja faaw nga wooyee ko loola